alhamdulillah rabbil aalamiin alladi akrama al anbiyaau yowma ashura istafa aadama fiihi wastawat safinata nuuhin wa rafa idrisa wa radda sulaymana mulkahu laysa ka mislihi sheyun wa huwa ala kulli sheyin qadir salawaatuhu wa salaamuhu ala ashrafi alcaalamin sayidi albaraya alladi qaala fi nafsihi man xaala fi shahri fi shahri almuharram allahuma anta abadi alqadim wa hadihi sanatu aljadid nasaluka asamatu min alshaytaani wa awliyaihi wa awnu ala hadihi nafsu ammarata bi suui wastigaalu bima yuqarribuni ilayka ya karim qaala sheytaanu ayaasana minhu wa yuwakkilu allahu alayhi malakayni yuxarrisaanihi fi tilka sanna mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi alkiram wa sahabati alidam wa man tabi'ahum bi ixsanin ila yawmi din amma baadu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 ñu ngi leen di joxaat sunu loxob xol ginnaaw bi nu santatee sunu boroom julli sëlmal ci sangu àdduna ak laaxira nuyu leen ziyaar leen ndokkeel leen balu leen xaq bal leen ko ñaan sunu boroom tàbbi nañu ci at mu yees yal na yàlla yeesalaat sunu mbir yëpp bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñaan sunu boroom aw at dëddu nañu woon ñu ginnaaw yal na yóbbaale mbooleem jafeñ-jafeñ yi ñaan sunu boroom dëkkmal nañu at tabbi ca yal nañ ca tabbee sutura yal nañ ca tabbee jàmm yal nañ ca tabbee taraanga yal nañ ca tabbee déggoo waaye yal nañ ca tabbee am yàlla biir ak biti bi jaayi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal leen jàmm ak ma ak barke yal na yàlla bokk nu ko defal mën ak yéen nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi waaye ziyaara ndokkeel wayjur yi nga xam ni noonu bokk njaboote ñaan sunu boroom mboolem téléspectateurs yi nga xam ne dañuy béggee sunu label TV yal na yàlla taxawul ñu leen biir ak biti waaye rawatina ñi nga xam ni dañuy ànd ak man ci sunu émission bii di jilsatu nabi di jataayu sayyiduna Muhammad ñaanal bu baax sunu directeur Haj Makhtar Silla yàlla taxawul ñu ko biir ak biti ba projet yi yàlla mottali lépp te mu ànd ak sago bi jaahi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi dal seeti nañu ci seen jataay bi nga xam ni moom la ñu tuddee jataayu Seydina Muhammad wi fi la ñuy waxtaanee lépp ay mbokk yi wolof day wax ni lu ay di jàmbat euh, dañu àndoon mën ak yéen ci waxtaane ñettu ñettu saxaaba yeeg ñettu ñettu yàlla yi ak ñettu Jibril ci di waxtaan man yéen ñu ngi ànd ci ñetti tabarfakalla yi nga xam ni moom la Ousmane bun Affan di andi waaye dama estan tuuti. ndax lan sunu xew-xew wi ñu ne nga xam ni mooy weer wu ñu tuddee ashhuru muharram muy weeru tamxarit nga xam ni at mu bees bu nu ko doy wax ñun jullit ni ci bii ñu tàbbi la muharram mii mooy sunu at mu bees ñun ba ñu ci tàbbee lañu am at mu yees jullit nag événement yi mu am war na xam lan la sagam nag kullu zamanin maqaal jamono bu ne la faw nekk lañ fa war a wax bëgguñu mukk seen jataay wii nga xam ni sayduna mu a ko moom ngeen yegsi ci am événement bu toll nii jullit ñi moom ko te waxuñu ci moo tax ñu ne nañ ci waxtaaneeg yéen tey ak suba mu doon waxtaan wi ñu fàttalante ci ndox ñu ngi ci te muy weer wu màgg waaye am bëccëg gu màgg gu am ci biir weer wi ñu tuddee ko yow mu ashura muy bisu tam xarit wii maanaam ñun jullit ñi nañu xam ni bii fee maanaam ferte la ci ñun feet la ci ñun bis la bu jullit ñu moom ñun ginnaaw korite tabaski tam xarit bii mooy sunu beneen feet wu rëy bis la bu màgg ci lislaam weer la wu màgg ci lislaam bi may ubbi léegi wax naa ni yàlla teral na ci ay yonent ci bëccëg giidi di ashura gi ndax ci la yàlla tànnoon aadama tànneefam googu yonent yàlla nuux ci ashura gii la ko yàlla dimbali woon ba gaalam ga teer yonent yàlla Idrissa ca ashuraam gii la ko yàlla yëkkatee woon yóbboon ko yóbboom woowu ngay dégg wa rafaanaahu makkaanan aliya ci biir nuyoo bi nee naa la yonent yàlla Suleymaan ci la ko yàlla delloo nguuram gi ba mu ko ñàkkee yëpp histoire la taabee ma ko dul may waaye rek dama la bëgg a feeñalal doole ji weer wi am waaye doole ji ñaari bëccëg yi am muy tashua ak ashura muy ñaari bis yi taqaloo muy neuvième neuvième jour ci weer wi ak dixième jour ci weeru muharram loolooy tashua ak ashura sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne képp ku yàlla dimbali ci biir weer wi nga jàng ci lii may wax lii may bëgg a wax ko jàng ci biir weer wii nena na moom pare na ci yow caat mi xam nga lu muy wax danaan yàlla diw moom pare naa ci moom ci at mi du ca yem yonent bi nee na yàlla dana yebal ñaari malaaka affecté ko ci yow ñu nekk sa surveillant mooy ku ñu lay ñoo xam ñoo lay garde durant at mi kenn dootu la liggéey Moussa mu jàpp la kenn dootul def ci yow safaan mu ñëw ci yow parce que da am ñaari gardien yu kenn dul gis muy ñaari malaaka yooyu yàlla yebal affecté leen ngir yow képp ñu nekk ci sa mission di la surveiller ba bu la kenn laal mbokk yi ñaan googu sayyiduna muhammad moo ko joxe kàddu yaa ngi nii mooy allahumma anta abadil qadim wa haadihi sanatul jadid nasaluka asamatuhu min asheytaani wa awliyaihi wa awnu ala haadihi nafsu ammaarata bisuu'i wastixaalu ma bima yuqarribuni ilayka ya karimu mbokk yi ñaan gaa ngi noonu képp ku ko topp ci man ni ma koy waxee nga topp ànd kook man am nga li yonent bi wax képp ku fexe ba wut ku la ko bindal mu bindal la ko nga wax ko am nga la yonent bi wax waaye mbokk yi ku mënul arab nga waxit wolof mooy lan yàlla yaa fi jiitu ñëpp maa ngi lay ñaan at mu bees mii ñu tàbbi maa ngi la ci ñaan nga ñoŋal ma ci seytaane ba bu ma waaye lu mu njaboote moom seytaane it bu ma laal yàlla nga dimbali ma ci bakkan mi nga xamante nii ku jëf lu bon moo la ci orienté waaye yàlla nga def sama yitte nekk ci lépp loo xam ne daf may may malay lay jege amiin mbokk yi ñaan gàngoog ci wolof ku wax lii yëgal ni Seyduna Muhammad nee na am nga garanti ci seytaane moom pare na ci yow at mi moom euh, du la poussé fenn du la poussé fenn moom pare na ci yow parce que mooy taxaw ne ayaasana minhu diw pare naa ci moom wa yuwakkiru llahu malakayni yàlla dana lay balaa ñaari malaaka yu xarisaanihi fi tilka sanna ñu lay sàmm ci at mi mbokk yi loolu xéewal la yàlla xéewale ci weer wi depuis ba weer wi teroo ci semaine bi ah ba keroog weer wi di jeex ku ko ci mën rek dee ko faral di jàng muy allahuma anta abadil qadim wa hazihi sanatul jadid nasaluka asamatu min alcheytaani wa awliyaihi wa awnu ala hadihi nafsu al'ammarata bisu'i wastighalu bima yuqarribuni ilayka ya karim mbokk yi weer waa ngi noonu bëccëg gaa ngi noonu waxtulifi fi tafsiri hadi alyawm innama sumiya ashura li annahu akram li annahu ashara yawmun min almuharrami waaye qaala baaduhum akrama fihi ashara al anbiyaa'i Moussa nee nañ li tax yàlla ñu tuddee li tax borom xam-xam yi ne mbir mi muy mu mufassir yi dañoo wuute ci baatu ashura lu tax ñu tuddee ko lu tax ñu tuddee tam xarit ashura ñu ne lan la ñu ne daf di fukk ci weer wi daf ne fukkeel ci ci weer wi sooy compter ba fukkeelu fan bi mooy ashura te ashura ci arab mooy fukk am ñu ne déedéet akramal anbiya akramallahu fii ashrata anbiya'i yàlla da cee teral fukki yonent yoo xam ni seen teraanga ñoo ngi ko jotee ci bëccëgu ashura loolu tax ñu tuddee bis bi ashura fukk ba waaw moo tax koy wooyee fukk waaye daal luñ ci mën a dégg bis la bu màgg bis la bu yàlla teral ay yonent ba ñun ñëpp kenn ku ci nekk yonent bi joxoñ na la bis bi yonent bi wax na ci xadis ne man saama yawma ashura kataba allahu lahu alfa hajjatin wa alfa umratin wa kataba lahu ajra ma bayna almashriqi walmaghribi wa harama allahu jasadahu ala annaari mu ne yonent bi de nee na ku yàlla dimbali ba mu woor yow mu ashura muy bisu tam xarit Moussa nag buñ ne bisu tamxarit a séeréel si moom bis bi ñuy reer lañ koy def ah <laughs> séeréel yëpp bis bi ñuy reer lañ koy def <laughs> ah déedéet moo tax déggoo mag ñi bisu reer lañ daan wax bokkul ak bisu tam de bu ñu reeree ba yeewu mooy tam xarit waaye bari na njaayeen wu siin soo ko de woon bisu tam xarit kañ la mooy ba ñu togg cere yi parce que cere yoo ko ci ñor <laughs> ah moo tax ma bàyyiloo xel ñëpp bu ñu waxee ashura ku ngeen dégg borom xam-xam wax ashura bul ko jàppee bis bi ñu reer te xale yay wax taaje boon wëllëy lu bis boobu de neel bu ñu nelawee ba yeewu reer nañu taaje boon nañu yeewu nañu loolu mooy ashura loolu la yonent bi wax ni parce que Moussa boobu la yonent bi woor ci sunna yonent bi mosul woon taasuwaa amoon na yiinim nag dane woon déwén su ma fi fekkee damay woor taasuwaa wooraale ashura mii may faral di woor tout le temps far yàlla dogal ca déwén sa fekk ko fi moo tax ku ko woor da nga mottalil yonent bi yéeneem waaye sunna bi moom mooy yow mu ashura mooy bu ñu reeree ba yeewu ca suba sa bis boobu lañu ñu tuddee tamxarit mbokk yi waxtu ma dab waaye yonent bi daf ne ku ci woor lala yàlla dencal cay taraanga yow suba danga may topp fii ci sunu Label TV ma wax la ki woor taraanga yi ko yàlla dencal ci yow mu Ashura maa ngi ñaan sama borom yal na yàlla may nu wér ñun ñëpp ba nu mën a wóor bëccëg gi bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa tegal foofu sa baaraam waaye nga toppaat ma suba ci jilsatu nabi ci détail sayduna muhammad wi ñu waxtaane ashura muy tamxarit ak la ci aju ñaan sunu borom yal na yàlla defal ñu dégg ak topp bi jaahi mustafa sallallahu alayhi wa sallam iza aradtum salamata al ardi fattabi'u muhammadan wa riwayatal umami mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu